alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayyidil mursalin muhammadin al amin wa alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin wa daa bi daawatihim ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani kaw qawli ñu ubbi waxtaan wi di sant yàlla subhaanahu wa di julli si yonent bi sallallahu alayhi di nuyu kilifa yi nga xam ñoo fi teew ak doomi soxna yi ak boroom xam-xam yi di leen wàcce seen wàccuwaay di nuyu aussi invité yi Euh, di beral nuyoo docteur Khadim Lo ci sas yi nga xamante ni moom la sas jàpp naa ni waxtaan wi waroon na ko mën a taxawe ndax ñaari mbir li si njëkk moom mooy formation may na ko ko ndaxte ginnaaw bi mu defee licence am ci wàllu tijaara def magistère ci wàllu finance islamique commencé di def doctorat ci wàllu finance islamique loolu di point de vue théorique doy na sëkk ngir waxtaanee ci wàllu zakat mais aussi dafa bokk ci ñi nga xamante ni ay pionniers lañu ci taxawal ay expérience de collecte et de distribution zakat kon di point de vue théorique loolu may na ko ko du point de vue expérience aussi loolu may na ko ko kon ñu koy ñaanal yàlla subhaanahu wa taala li mu ci yëngutu yëpp mu fay ko ko li ma wax ci docteur Khadim war naa ko mën a wax aussi Serigne Sam ndaxte ñu ngi suivre ay waxtaanam ci wàllu euh, azaka ak yi ni mel mu nekk koo xamante ni am na ci xarañ ba tax kon ñun dañuy jéem ci waxtu yi néew yi nga xamante ni moom lañ fi toog indi ay éléments ci wàllu solidarité ak ci wàllu zakat ay éléments lay nekk parce que soo jëlee solidarité ci boppam pàcc wu rëy la yu nu bind ay thèses yu bëri yoo xamante ni kon benn jataay waru ko mën a tënk mais aussi soo jëlee asaka ci boppam. pàcc wu rëy la loo xamante ni ay thèses yu bëri leen ci bind nga xamante ni moom rek war na mën a doy waxtaan wala mën na mën a doy euh, maanaam ay forum ak ay conférence ba tax na kon su fekkee euh, dañu boole ñaari thèmes yooyu jubluwaay bi xëy na dugg ci détails yi mais jubluwaayu soññiwaate la pour fekkee jóge nañ fi euh, ñu mën ci taxaw sunu kemtalaay kàttan waxtaan wi nañ ko ubbee ci wax palaasu solidarité ak jéem wane naka la jokkoo ak li nga xam ne moom mooy azakaat azaka comme nañ ko waxe woon sànq jubluwaay bi nekkul dugg ci yenn détails mais surtout gën a soññuwaate par rapport ak azaka te loolu nag nañ ci Euh, indi ay njariñ yoo xamante ni azaka am na ko te ñu koy tibbee ci alxuraan nan indi aussi euh, yenn élément yuy wane fiq maanaam téere fiq yi li ñu indi si azaka ñi nga xamante ni ñoo ko yeyoo alal yi nga xamante ni ci leen war a génne asaka nan andi tamit Sénégal fi nga xamante ni. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa sant bi. Seck ah, ah yow sant bi <laughs> Seck jàmm rek Seck alhamdulilah kon ñu ngi nuyu sëñ sëñ Seck ah, di rafetlu taxawaayam ci alxuraan bi. yàlla na ko yàlla fay ci loolu kon ñu doon wax ni dinañ ñëw ci azaka ci biir Sénégal wax ci tuuti wax aussi li nga xamante ni mooy potentiel bi mu am ak état des lieux maanaam ci wàllu jëfin wàllu pratique fa nga xamante fa lañ ci toll jeexale ci ay recommandations alors point bu njëkk bi muy solidarité mën nañ ci wax ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy faridatun wa daruratun solidarité farata la mais solidarité lu mënta ñàkk la solidarité farata la parce que am bëri na ay aayal alquran yoo xamante ni dana ñëw di ñaax jullit ñi pour ñu def ko wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan yàlla moo sant jullit ñi pour ñu jàppalante ci mbaax ak ci ragal yàlla mu tara leen ñu jàppalante ci lépp loo xamante ni bàkkaar la ak lépp loo xamante tooñ la kon fii santaane boo xam dafa jóg ci yàlla subhanahu wa jëmale ko ci jullit ñi mu wane ni kon farata la yonent salaatu salaam di melal solidarité boobu mu wax ni inna masalal muminina fi tawaddihim wa taraxumihim ka masalil jasadi ida shtaka minhu odwan aw odwun tadaa lahu saairul bi sahari wal xumma jullit ñi seen misaal su ko doon misaal seen solidarité seen bëggante seen yërëmante dañuy mel ni yaram yaramu doomu aadama cër bu ci am lu lay metti yeneen cër yëpp dañuy am solidarité yeneen cër yëpp ñoo koy yëgandoo kon nee na jullit ñi aussi kadaalika noonu lañu war a mel kon ñaar yooyu rek ñaari texte yooyu doy na pour wane ni solidarité farata la boo xamante ni l'islam moo ko teg ci kaw jullit ñi mais dana waxoon ni solidarité darura la maanaam loo xamante ni mënta ñàkk dundu doomu aadama moo ko laaj te loolu lu koy firndeel mooy dëkk boo dem société boo dem di gis ni dinañ am benn système de solidarité boo xamante ni ñu am doole wala ñu am kàrtan ci la jàppale ñu néew doole kon loolu déjà firnde la bu matale buy wane euh, que ni solidarité yamul rek ci lislaam mais loo xamante ni doomu aadama même sax yenn bàyyi ma yi dañ koy def yàlla aussi. di ko wane ci ay aaya bokk na ci fi muy wax ni wa huwa alladi jaalakum xalaa'ifa al ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin li yabluwakum fi ma aataakum inna rabbaka sariu al iqaabi wa innahu la gafurun rahim su neexoon yàlla day yemale kenn du soxlaal kenn dara waaye loolu sawul yàlla li soob yàlla mooy dafa jël ñenn teg ko ci kaw ñeneen dafa may kii xañ kii may kii alal xañ kii alal may kii xam-xam xañ kii xam-xam may kii xel xañ kii xel et cetera et cetera donc li yabluwakum fii ma aataakum lan mooy jubluwaay bi dafa bëgg a nattu surtout ñi nga xamante ni am nanu ci li nga xam moom la leen jox est-ce que dinañ ci def seen warugar li nga xam moom la leen sant wala déet kon su fekkee nit ki dafa am que ce soit xel que ce soit xam-xam que ce alal bokk na ci li ñu xaaral ci moom muy mu taxawee maanaam loolu nga xamante ni moom la alal ji wala xam-xam bi laaje kon loolu rek doy na pour prouver ni maanaam solidarité farata la mais solidarité aussi lu mënta ñàkk la. solidarité si biir lislaam dafa am ay jago jago yi mooy ashumuliya wal aalamiya maanaam lislaam dafa gëm ni doomu aadama yemul ci matière mais doomu aadama matière la ak ruux moo tax ni nga xamante ni solidarité noonu lañ ko waralee ci wàllu matière ci wàllu jàppalante ci wàllu alal même ci wàllu physique noonu aussi la ñu war a jàppalante ci wàllu moral moo tax li lislaam di tuddee ak nasiixa muy laayante biir dafa nekk àq boo xamante ni jullit da koo amal moroomu jullitam kon mën na ci joxe ay exemple yu bari waaye comme waxtu wi maanaam du ko mayee moo tax dañ ci doyloo loolu di dund yooyu dana wax ni euh, atadaamun islami aalami solidarité islamique dafa universelle mooy yemul rek ci jullit bi maanaam jullit mi euh, sàkkuwunu si moom mu yemale mbaaxam mu yemale ndimbalam ci moroomu jullitam rek mais mbaax googu ak ndimbal googu mën naa law waaleykum salaam wa ba àgg même ci koo xamante ni bokkuñu diine moo tax yàlla subhaanahu wa taala di wax ni laa yanhaakumullahu an alladina lam yuqaatilunakum fi diini walam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa taqsutu ilayhim kon yàlla wax na ni même koo xamante bokk leen diine tànk yéen yéen a ngi seq jàmm war nga mën a rafetal jëmale ci moom war nga mën a maanu jëmale ci moom waaye nag comme ni ñu ko gisee sànq maanaam solidarité boobu dafa am ay dawaabit dafa am ay paramètres yoo xamante ni ci la war a tëddee te aay bi indi ko wa taawano alal birri wa taqwa wala taawano alal ismi wal